sëriñ Abdou Lahad moom sëñ Cheikhouna am sëñ Sam Mbacke Ndoulo yàlla dogal ñu doon jàppale Macky Sall waaye yàlla dogal na actuellement nii ñuy waxeek ak yow amatuñ euh, bokkatuñu ab liggéey maanaam moom bokkatuñ aw yoon parce que dañuy wax rek ca lañ digge woon. li waraloon woote bi mooy ginnaaw bu ñu siyaaree Cheikh Mamadou Mountakha ci waajtaayu màggal gi ci safar gi ñu ne di ñaan saa borom yàggal ko fi lool ca mu ànd ak wér. di ñaan saa dogalit kilifa yi diine yëpp saabaroom borom yàggal leen fi di ñaan si Muntaxa it di ko gën a ñaanal naal yi mu naal ngir bëggoo liggéey Serigne Touba maamam ju tedd ja saa borom yàggal ko fi loolu mu def ko. ba ni ko bëggee lépp ñu ànd koog moom ñun mbokk taalibe ak jullit yëpp di siyaare jullit yëpp ak murid yëpp ci safar gi ñu ne di ñaan saa eggal ñu ca màggal gi ak jàmm di wax ne li ñu fi indi mooy juróomi ponk rek yoo xam ne ku ne xam na ne Touba ak assainissement bi ni mu demee. sonal na doomu aadama yi lool muy mbënn mi li ko waral nag mooy état ci boppam lim fi waroon a def ci ay euh, maanaam bassin euh, retation bassin de ratation benn bassin rek a fi am. Mhm. bassin bi fi am mooy. Mhm. bassin central bi nekk Kër Ñang mhm. ak it stockage bi nekk daru Rahman. Touba di dëkkuwaay boo xam ne deuxième capital ma wax ne Touba ci boppam benn bassin ni Touba yaatoo baaxu fi bassin yi boo xoolee benn basin moo fi nekk muy bi nekk Kër Ñang ak benn stockage bi nekk Darou Rahman Touba di deuxième capitale waroon am gën gaa gàtt ñeenti bassin bassin yoo xam ne ñeent lay doon nekk ci ñeenti gox yëpp nga nga yokk bu Kër Ñang bi mu doon central bi ngir bu fa dajee ñeenti bassin yëpp buñ serve Kër Ñang mu mën a yóbbu ca stockage bi nekk Darou Rahman waaye dëkk bu war a am ñeenti bassin ba juróom benn bassin am benn bassin dong mu war a boole ndoxum taw mi war a boole ndoxum kër yi loolu xam nga ne moo waral bi yàlla dogalee taw bi dikk Euh, maanaam bassin bee ca kër ñang dem ba niveau bi mu waroon jël jël lu ko ëpp map bu ba kër yëpp ba ba ba bassin bi ndox mépp génn dugg kër ñang dugg fépp ci Touba dugg fu mel ne yoonu daaru dugg fu mel ne euh, fi ñu koy waxee daaru Xaddim muy ñaari cafetière nga xam ne fu foofu ñaari maam lu mat 60 kër génn nañ fa yoonu daaru lu mat trois 300 personnes 300 familles génn nañ fa loolu boo ko xoolee di loo xam ne ñàkk a taxawaayu état la ca ñu waxoon mooy assainissement bi dinañ ci jàpp ci keroog bi nga xam ne Aliou Ngouye Ndiaye ñëwoon na ci cérémonie màggalu euh, Touba deux euh, maanaam deux mille dix neuf ak deux mille dix huit yëpp danay war nawet bi xam nañ ne ci assainissement bi bi xam nañ ne dañ cee war a jàpp ndax nawet bi ñu jëm si incha allahu rabbi ak yi ci topp yëpp day doon ci biir màggal gi kon assainissement bi war nañ cee dox jëm waaye mu doon ay diggee kese ay nari kese Touba sonn cinq personnes ñoo fi faatu ci mbënn mi ca loolu état yónneewu fi waxu ci. ministre de l' bi mu ñëwee barki démb ànd ak ministre euh, ministre bi yor wàllu assainissement muy Serigne Mbaye Thiam dafa wax ne président ci boppam fàttewu leen waaye lam ñu dig mooy dafa wax ne génn na 15 milliards pour ndox yi ndox yi nga xam ne ñooy nekk ci biir kër yi cinq milliards yooyu buñ ko 10 euh, mille 15 milliards yooyu buñ ko génnee ngir ndox yi nekk ci kër yi 10 villes lañ ci bokk la lañ ci lañ lañ ci tànn 10 villes yooyu Touba ci la bokk. loolu mooy lum ñu dikk ca ñëwagut muy 15 milliards yooyu pour ndoxi kër yi ndox yi nga xam ne moo nekk ci kër yi état di ko séddale ci dix di dix villes Touba bokk ci loola ñëwagut dañ ñu koo dikk mu ne waat ne it ne incha allah rabbi fii ak màggal 4 milliards dañ ko andi ngir bassin rétention bee nekk kër ñang ñu man koo yokk ngir mu mën a servir à 100 pour cent li mu war a servir yoonu daru ngir màggal gi nit ñi mën a dëkk fi ne ni màggal gi ñëw na ca 4 milliards wax ay dige kese la liñ woon lépp defuñu ko 4 milliards ñoo ngi wax président buy ñëw incha allah allahu rabbi samedi bi ñëw bu ñëwee ba siyaare sëñ bi ba pare na génn 4 milliards yi ne lii daar daar la ci màggal gi nañ ko def ci basse rétention bi nga xam ne moo nekk kër ñag ñu mën koo yokk mën a yokk pompas bi ngir li nga xam ne it moo nekk Darou Rahmane muy bassin stockage bi lépp mën faa dem wax na it bu ñu defee 4 milliards yi 23 milliards dañ ko defaat 5 milliards yi ci njëkk mooy li nekk bassin rétention yi nekk Touba muy bi nekk kër ñag ak bi nekk buñ ko bu ko defee maanaam euh, dix huit milliards yi ci des vingt trois milliards la wax boo ci génnee cinq milliards dix huit milliards moo ci des dix huit milliards yooyu mu wax ne dinañ wut bassin yu bees Touba rétention xool fi nga xam ne ci gox yi ak quartier yi dinañ fa yokk ay ndox loolu treize milliards yi ci des moo koy def ca loolu yi dafa wax ne lenn loo xam ne teew na ci amut wala luñ indi indaale ko wax ko dañ koo wax rek ca mu doon loo xam ne ay promesse la ca ñu wax ne it ñu wax ci maanaam Touba vingt trois milliards yi fi a dugg yëpp loolu dan ne woo techniciens yi ñu def ay études études yi état nag surtout état bu bëgg a defi tappale mën naa def 15 ans mën naa def 10 ans ay études lañ ñu waxuñu ay études nañ andi liñ fi war a def muy 23 milliards yi def ko ci dëkk bi ndax ku ne xam ne Touba di deuxième capitale li fi ne ci ci ressource ñu koy ñu koy jëlee ci mu koy mu koy def ci keesu réew mi moom Touba màggal gii rek nga xam ne ku ne xam na ne semaine màggal ci boppam Touba rek dina génne 215 milliards wala 250 milliards lañ wax ne environ dina ko génne ci semaine màggal gi waxuma li ngay li nga xam ne jour à jour la koy génne ci ci ci at ñëpp kon Touba kuy génne deux cent cinquante milliards ci benn semaine nga war koo jox vingt trois milliards di ko dagg-daggee di ko dig ci andiwoo ci dara loolu mooy tax dafa loolu mooy dafa yóbbaa Touba cinq personnes fee maanaam nelaw nañ ci assainissement bi ca waxuñ ci dara. Touba eh, mosquée it gis nga ko fii ni mu mel gis nga jumaa ji fii jumaa ji mëtu 30 mètres fii day taa depuis des années mi ngi taa. yoonu garage yoonu yoonu gaar bu ndaw bee day taa lépp moog jumaa ji mëtu 30 nga xam ne kon sorti be mu sorti Mbàkke bee buy dugg moom mi nga xam ne dafiy ñëw fi mu day fi muy jaar bu duggee dina gis na mu mel bon gum bon nga xam ne moom buy dugg ci yoonu Mbàkke wee di communauté rurale bi buy dugg dina xam dina bon dina xam yoon yoon yu bon wun bon wum bon bu loolu jàllee santé bi boo xoolee Touba ni mu toll di deuxième ñetti basu de santé nga fi mën a wax Daaru Marnaan ak bi nekk euh, Daaru Xuddoos ak bi nekk euh, nuñ koy waxee di euh, jéemul ñett yooyu nga fi mën a wax

ak defi poto ak i monté ay verre pa pareegut karawuñ ko defaguñ ko dara xanaa bala ngaa inaugurer nga fexe ba lépp pare nga dem ba occuper say docteur nga xam ne bu ñëwee directeur bi nga fal moom ngay àndal ak docteur yi yenn kilifa yu mag yi ci doctor yi ñu ànd ak yow ngi ak kilifa yi dëkk bi ngeen inaugurer mais 60 pour cent lañ ci def wala 70 pour cent ne dañ koy ubbi ci màggal gi mu doon politique ma ne man lii sax li may nuru mooy fa mu njëkkoon a ubbi ubbi fa mu woon mooy bi campagne. ne day def tournée économique defu doon tournée économique da doon campagne bi muy campagne ba dem Fatick ubbi na fa hôpital njëkkewu Touba bu ñu politiquee Touba ubbi na Fatick ubbi Kédougou ca yooyu day wane ne eggut ndax li mu war a def Touba bu ñëwee mooy et euh, ubbi ko ca ca ca eggut kon kon na président xam ne ñun ñi nga xam ne ànduñoo ak moom ñuy wax ne buy ñëw incha allahu rabbi ñi kontaanut ci moom ñëpp dinañ génn Touba nag moom nañ bàyyi ne Sëñ Muntaxa président day xaritu président Sëñ Muntaxa ñëpp la fi nekkal di ndug yërmande citoyen lambda bii bu demoon moom lay gën a fonk ci président buñ ko politiqué naan daa fonk président ñëpp la fonk màggal gi ñëpp la woo président nag bu dee ñëw ñi ko faloon Touba fal ko ci département bi muy def tournée économique jaarut bawal di def lu ne du jaar bawal defut dara bawal ba war a màggal si bëgg a politiqué hôpital bi ñun ñi àndoon ñëpp ñi nga xam ne dëkk nañ Touba dëkk ci région bi dëkk ci département bi gisuñu lu fi président def buy samedi incha allahu rabbi ñoo ngi woo ñëpp ci eltonu ci eltonu ci eltonu mbàkke bi ak totalu mbàkke bi ñu wër ko ginnaaw moom nee na bëggut gis lu xonq ñu pentir ko ak ak ak ak ak ak ak pentir bu xonq